علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى dama doon rekk eh, eh, seet ak yéen ñu xalaat ci li nga xam ne bi eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko gannaaw bi alxuraan waxee nañu julli ci yonent bi te eh, sàkku ay blessing ci ci ci prophète bi bi mu ñu ko sante <coughs> ay nitam dañu jaaxle ne ko waaw nan lañuy nan lañu koy defee julli ci yow nan lañu koy defee ndax eh, eh, lan lañu mën a wax kàddu boo xam ne bi toll na ak yow mu jàngal leen kàddu bi ñuy jàng muy salaatu nabi ibrahimiya allahuma salli ala muhammad wala ali muhammad kama salayta ala ibrahim wala ali ibrahim wa barik ala muhammad wala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid noonu mu ci ràññee yonent yàlla ibrahima alayhi salaam yëkkati ko ba nga xam ni bi yaakaar na ne ñaan bi nga gën <coughs> a ñaan ñaanal moom foog nga dugal ci ibrahima ma wone rek ci waxtaan wi rapidement ni ibrahima toll woon ci moom ni mu ban ban signification la amoon ci diinay ci diinay islam insister ci li nga xam ni euh, euh, mooy le fait que Ibrahima ci boppam moo sàkk tuuru jullit muslim jox ñu ko. xam nga dañuy yaakaar ne islaam wala nga ne nit ki jullit la musulman la euh, mu ngi feeñ rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni déedéet alxuraan dafa ne seen maam Ibrahima. moo tànn turi muslim pour yéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi vivre euh, sixième siècle ak septième siècle Ibrahima kenn xamul kañ la vivre woon kon islam jiitu na fuuf tàngu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Ibrahima moo ko jëkk indi fii mu mel na kon islam du rekk euh, euh, diine bi ñu naan moom moo ko indi moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa di li nga xam ne lii moo nekk ci diggante mbindeef bi. ak yàlla mi ko sàkk relation boobu mbindeef bi war am ci yàlla mi ko sàkk xàmmee ne moo ko sàkk xàmmee ne ca bés ba ñuy wax bésu alastu ci alxuraan ba mu nee alastu bi rabbikum ndax man duma seen borom ñun ñëpp dañu tontu woon balaa balaa boobu ñu tontu woon nekk ahankay ahankay nangu nañu nangu boobu moo firi islam nangu boobu nag doomu aadama nangu jiitu na diine bi nga xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi indi te mu ni Ibrahima moo leen jàngal loolu moo leen jàngal boobu diine moo tax ma yaakaar ne li tax mu tànn salaatu boobu ne na ngeen ma euh, euh, euh, na nangu li leen yàlla wax na ngeen ko defee ci salaatu bi noonu Ibrahima dal toll woon ci moom la ñun nag dañu sopp nañu sone yonent bi sallallahu alayhi wa ba borom xam-xam yu bare Euh, euh, fent nañu xalaat nañu ay salaatu ala nabi yu bare nee nañu itam d'ailleurs bi ñuy xalaat salaatu ala nabi yooyu euh, lu ñu lu ñu leen lu ñu leen digal la lu ñu leen won la yàlla xam ci gént la wala daal dugal na ko ci seen xol ba jàpp nañu ne salaatu ala nabi yooyu wax dëgg yàlla weesu na rek ay nit ne ñoo ko doon tëgg du poésie du dara lu dul cofeel bi ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba nga xam ne bi am na rawatina ci suñu mbokk tijaan yi xam nga fonk nañu trop salaatul faati yooyu yëpp ay ay ay ay salaatu ala nabi yu am doole la yu am solo waaye bii nga xam ne bi moom ci boppam moo ko jàngale dugal ci Ibrahima ne moom dama bëgg ngeen boole ma ak Ibrahima ci ci kii bi moo tax ñu war ko bàyyi xel d'ailleurs suñuy taaya suñuy julli boobu mooy boobu mooy boobu mooy boobu mooy dugg si kon boog damay àggal rek di leen gërëm di leen sant di sant suñu imaam bi nii nga ma boolee ci jataay bi yaakaar naa ne fi mu nekk nii fii ñu nekk nii Eh, eh, moo gën ci béréb yi ñu mënoon nekk ci New York ndegam lii moo ñu fi dajale ñu eh, wax ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu xam lu ñu xamul la xamul te jëm ci wax ñu ngi ñaan yàlla mu baal ñu ko moo tax ma yaakaar ne lii nga ma wooyee fii mboolee ma kook borom xam-xam yi nga xam ni jàng naa ci ñoom lu bare fi ma toll nii maa ngi la ciy gërëm di la sant di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla subhaanahu wa mu saxal ñu ci diiney lislaam guddal ci suñuy fan may ñu ci wér yaram may ñu xam-xam bu ñu jariñ àddina jariñu alaaxira di ko ñaan mu def ci suñu xool iimaan buy dàq bépp ragal bépp jaaxle bépp jàq-jàq di ko ñaan mu xiir ñu ci ihsaan te jàppale ñu ci ci darajay rasulallah sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayyidina muhammad alfatihi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaq ناصر wa بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin jazaakallaahu khayran bismillaahi rahmaani rahiim wan najmi izaa hawaa maa dalla saahibukum wa maa gawaa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 ثم دنا فتدلى